doyen maa ngi lay nuyu. Tidiane nga toogal ci plateau bi. Ah, voilà doyen xam naa ni xibaar bi tamit euh, ni ñu ko jotee noonu nga ko jotee euh, fi mu nekk nii yow naka nga ko jàngatee prudence ngay euh, dawal yaa ngi wéy di yaakaar ni ba léegi ni Sadio war na mën a bokk ci coupe du monde bi. waaw parce que xam nga chef waxtaan wi ubbeekoogul waxtaan wi ubbeekoogul li ko mën ubbi moo ñu ni Sadio wëy wala Sadio non ubbeekogul parce que fi mu fi mu fi mu nekk nii décision médicale moo tëj encore waxtaan wi dara ubbeekogul léegi bu waxtaan wi ubbeekoo je prends je prends par exemple euh, euh, l'entraîneur en ce moment li ci xelam li mu li mu wax def euh, xamagu ko tant que waxuñ ko ni Sadio dana bokk wala du bokk alors bu fekkee ni nag loolu ubbeeku na damay dooree par exemple euh, li li li ñu buggul bu ñu bu bu médecin bi ne euh, il va être indisponible pour une période bu nga xamee ni xëy na ñun du baax ci ñun dana fekk coupe du monde bi door ba war jeex et cetera et cetera on ne sait jamais euh, c'est c'est à ce moment que waxtaan wi par exemple liggéey bi di door ci Aliou Cissé ci lay soog a dégagé do dafa mel ne léegi bunt bu tëju ñu taxaw ci bunt bi xamuñu lu ci biir taxaw di waxtaan balaa liggéey bi door ñu ubbi bunt bi ba xam lan la moom laa wax ci décision médicale jotagul léegi na léegi na euh, le le football le plus titré au monde a gagné une coupe du monde sans son joueur le plus désiré Le Brésil a gagné la Coupe du Monde 62 sans Pelé. Et si aujourd'hui dans le monde, on a parlé de Amarildo, <coughs> c'est parce que Pelé était blessé dès l'entame contre la Bulgarie. Euh, Brésil continuait sans Pelé, gagner Coupe du Monde. Mais nous, nous sommes attente. Madame, on est en face d'un match, le coup d'envoi n'est pas encore donné. Compte tenu du coup d'envoi, nous avons dit wax nous ci dit que nous ci coup d'envoi bi jaxoo kon il faut attendre léegi nag lu mënti am rek ñu jël de toute façon ñun musuñu dépendant nous avons 60 ans d'équipe nationale te musuñu dépendant ce que j'appelle ñàkk dépendant moo di jël benn joueur euh, yenu ko moom la poète bi wax un seul être vous manque et vous vous retrouvez dépeuplé un seul être vous manque alors nañ ne waxtaan yi dooragul xëy na fileeg ngoon daañu war nekk ci beneen waxtaan léegi imaginer li ñu ni la bon parce que man ci information bi ma jëkkoon am bi ma jëkkoon am dañ ñu juste Sadio dana indisponible au prochain match du Bayern c'est-à-dire saison bi tëj na au Bayern parce que le dernier match de championnat bi ñu waroon jouer avant ñuy dem coupe du monde c'est déjà dans quelques jours match boobu du ko jouer te bi mu blessé jóg na dox yëgul ci si rien Sadio bi mu blessé jóg na dox kon wane na état bi blessure bi euh, euh, nekkoon léegi nag attendre parce que dafa am dafa dafa am ñu nga xam ne dafa leen di neex ñuy véhiculer luy luy luy tiital nit ñi et cetera et cetera wala wala lu war animer bis bi fii ba ngoon ñu dellu si ne non non il est rétabli léegi on attend léegi euh, Cheikh ba noonu laa ko gisee attendre bu gis nga bu la neexee buñ la nee du jouer wala dana jouer à ce moment bu la neexee ma ñëw yendu ci yow ñu waxtaan ci ba suba